asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yoon tam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñëw leen di siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen rawatina yéen ñu amoon fii ci Daaru Salaam si baaw siyaar nañ leen bu baax a baax kii nag ngeen di gis mooy xasam xay xay mi ngi nii di koy gis kii mooy xasam xay xay nag garab bu mag lay doon taweex garab gu mag a mag lay doon taweex xasam xay mii nag lañ ci wax moom du sori xasum xay yow mi amee cat te mënoo bind yow yaa ñu tax a jóg tey yow mi nga xam da amee cat cat sonal la te mënoo bind wutal xasum xay bii boo demee ci jaaykati garab yi dakaar Touba foo dem ñu jaay la ko nga jël ko loo ci am baax na nga di ko def ci sa siwo di ko sangoo lu baax ci cat la day dina cat de xasum xay li nga koy gis nii tamit dana faj ndoxum siti boo amee ndoxum siddi jëlal benn xas nga def ko ci xas bu yam nag lañ la wax nga wut ndox litre genn wàll nga baxal ko ci ba mu ñor nga xent ko mu seet nga di ko naan kaasu ataaya ndékki añ reer lu baax la ci ndoxum siddi moom it te day leeral yaram bi lu baax la ci ndoxum siddi waaye lu baax la ci cat yow mi amee cat nag ba ci gën neex nag mooy nga dem nga wut juróom-ñaari xay yu boo demee ci dëkk bu bari xay da ngay dem nga wut juróom-ñaari xay yu bokkut xay gu ne nga xas ca ba mat juróom-ñaari xay nga di ko sangoo lu gaaw a gaaw ci cat la lu gaaw a gaaw gaaw ci cat la boo ko mun am loolu nag da ngay dem jaakati garab yi rek ku ne xañ na nga dem nga jënd fu ne ab xas rek xas rek fu ne nga jënd foofu takk rek xañ na mu doon juróom-ñaari garab yu bokkut waaye même boo amul juróom-ñaari garab yu bokkut benn bi nga am ni baax na jëndal ab takk ci xasum xay nga def ko ci siwo 5 litres wala 10 litres nga di ko sangoo loo bari cat loo bari cat nga te koo bàyyi cat lu yàgg-yàgg dana deñ lu baax la ci cat te yéen ñi mënta bind nag yéen a tax ma di ko boo mënee bind nag boole ko wéyin yekkaat di ko sangoo tamit lu ci gaaw la yow mi mënta bind boole ko wéyin yekkaat du di ko sangoo boo ko mënee bind laa wax boo mënee bind nga boole ko wéyin yekkaat di ko sangoo lu ci gaaw boo ko mënta bind nag wéyin yekkaatu boole wutal xasum xayma nii rek nga di ko sangoo def ko ci sa 5 litres wala 10 litres saa boo guddee nga sangu ci ci kàttan suñu borom boo ko defee de léegi nga tàggoo ak cat lu mu garaaw garaaw kon yéen ñi mënta bind te awala amul jotug bind kon mi ngi noonu xasum xay foo dem ci marché bi ñu jaay la ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu